ndakaaru di dundu jamono ji tàngaay bi métti waral ñu doxantu fële ca plage bu Besseyaawo mu fees dell ki nit ku ci nekk li la yëkkati. gis nañ ne pratiquement ces derniers jours xaw na tàng quand euh, boo xoolee ci climat bi euh, loolu tax na souvent ñuy euh, doxantu plage personnellement c'est pas un choix que j'ai fait man mais souvent sama soxna sax moo may moo may. Euh, poussé à ce que ñu ànd doxantu histoire wala de décompresser. tàngaay bi joué na ci waaye ñàkk liggéey bi ci dëkk bi tamit moom moo ëpp doole ba tax nit ñi di fi ñëw quoi parce que boo xëyee amoo loo def kay mën ngaa dem géej wala nga taxawaale ji ba heure bu la neex nga dem sa kër. am na ay kilifa nag yu fiy ñëw yoo xam ne peut-être tàngaay bi moo leen fi indi wala xool diversité xam nga affaire yooyu quoi mais en général li fi ëpp mooy ñàkkum liggéey bi nekk ci dëkk bi moo fi indi nit ñi quoi. été bi moom xam ne moom macha allah ñëppay génn ak tàngaay bi fi mu toll nii ngi sant yàlla bu baax a baax a baax macha allah njaay maa ngi dox. gaa yaa ngi génn ndax kër yëpp tàng. lenn rek muy ñuul ci soow mi saay su waxtu wi jotee dañ ay nit dañuy faral di lab ndax wayjur yi ñooy seetaan wala ñi leen di surveiller ci plage bi ñoom ñoo deful seen liggéey ñii di ci indi ay tontu. loolu moom foodu parent yi la quoi parce que tamit boo amee sa doom doo bàyyi muy taxawaalu ba yenn heure mu ñëw ci géej gi nekk tefes yi tax mooy loolu wóorul quoi loolu moom euh, mën naa wax ni parents yi ñoo démissionné quoi loolu ci parents yi la quoi. kër ga bu fekkee am nga euh, donc euh, position bi war vis à sa doom. ah je pense bien que ne problème yi ñuy am ci plage yëpp du du ko am mais wàllu lab bi souvent chaque année ici au niveau de BCEAO dinañ gis ne am na des maîtres nageurs yoo xam ne volontaires yoo xam ne dañ leen fii gis à chaque fois qui veille sur ça bañ nañ ko ba y des heures yoo xam ne dañuy autoriser baignade bi xale yi sangu à 18 heures je sais pas 19 heures dañuy obligé génn leen buñ paree nag parce que ñoom tamit dañu am ay njaboot dañuy dem seen yoon donc dañuy dégager seen responsabilité génn leen après mën a disposer wu quoi Ahmed Seck di ndaw di ñaax moroomam yi ñu moytu bu baax géej gi bile yaay moom di sàkku ci xale yi ñu def ndànk. ñu mën ñu mën a moytu géej gi ndax géej gi moom xam nga gars yi naa ñu ngi ñu ngi ay day bañ gaañ léegi ñoo xam te ne xamuñu géej bu war nañ mën a yem si tefes gi sangu ñoo xam ne ñoom mën nañ géej gi nañ dugg ba biir géej sangu waaw. géej gi dafa yëngu wóorul xale nañ maytu bu jàngee wàcc. buñ feexloo dem ñibbi mooy jàmm ji parce que yaay yi tamit dañoo jaaxle démb rek ñetti xale lab nañ fi sànq benn xale lab na fi ñu leen di wax rek ñu maytu rek xam ne jur moom dafa metti te ku jur yërëm. tàngoor bu metti ñu nemmeeku ko ci ndakaaru waral géej gi commencé fees ak i nit ñuy ñëw di féexlu moo xam góor jigéen ndaw wala mag ku ci nekk yaa ngi fexe ana naka ngay féexlu si ci yile plage